injustice nag yàgg naa am Sénégal te ñoom kenn tegu leen injustice parce que kenn barricade wu seen kër kenn fekku seen doom di jàng ñu ne ko déedéet doo génn seen jabar demul du liggéey ñuy visité oto dañ leen ñi ngi dem ñi ngi vaquer à leurs ku mën a dem démb fële mhm. bu fekkoon seen jamono la doo am jotu toog sa permanence ba di def conférence de presse mhm. sa kër sax doo ko génn comme nag ñi ngi am jot di wax di am jotu conférence de presse nañu xaar Euh, reddition des comptes la ñuy euh, des euh, ba tey l'ancien secrétaire exécutif bu OQSF Mamadou Habib Ndaw moom dañu ko teg loxo ba tey ci reddition de comptes. waaw comme ni nga ko waxee ak contrôleur bu mhm. trésor di Daxa Diallo ancien comptable bi itam di Alphonse Diombo Thiarane expert informatique. Pape Souley Sow nekk agent à la direction de la promotion touristique et fournisseur. waaye tamit euh, bu Diaw nekk euh, gérante entreprise boobee nga xam ne mooy Takusaan euh, ñoom waa division des investigations criminelles teg nañ leen loxo le 20 septembre tey jii nag ginnaaw retour de parquet yi nga xam ne jot nañu ko am jot nañu ne dinañu jàkkaarloo ak kii di parquet ndaxte ñu ngi wax ne 2017 inspection générale des finances muy IGF. Mhm. ci la leen épinglé woon waaye ñu ne pour politiques. dossier boobu dañ ko dugaloon ci tiroir bi kenn mësu ko woon génne 2017 la woon euh, kii di Ndaxa Diallo moom nag moom moo nekk au cœur li nga xam ne jàpp nañu daf ko détourné estimé à 181 virgule 9 millions de francs CFA ñuy fàttali moom moomee euh, nekkoon soutien benn bokk yaakaar ca Kaolack ci euh, bannière action républicaine ci conclusion yi nga xam ne waa IGF def nañu ko moom Ndaxa Diallo nag reco reconnaître na les faits yi nga xam ne def na ko jamono joojee mu nekkoon agent comptable euh, muy euh, mai 2016 jàpp juin 2017 euh, ci enquêteur itam wax na ne daal dafa doon defar ay chèques yoo xam ne dafa doon alimenter la caisse d'avance Euh, ci euh, beneen cas bi tam Daha Diallo daf doon payer ay fournisseurs am ci base boo xam ne ay fausse facture la ñeneen ñi la doon encaisser xaalis bi euh, reversé ko itam ngir mën ci am li nga xam ne moom mooy ay commission mhm. fournisseur bi di Pape Souley Diallo ak Seynabou Thiaw ñoom nee nañu ci commission yu 10 pour cent ci montant bi nga xam ne dañ ko doon récupérer lañ ci doon am Daha Diallo nag moom la nga xam ne wax na ko ci enquêteurs yi nekk division des investigations criminelles nee na xel mi dafay négligé xel mi dafa am ay troubles psychiatriques moom mooy justifier euh, prédation financière yooyu nga xam ne daal dina koy euh, daal dina koy def euh, ci <laughs> indiqué na tam ne retourné na mais xel bi mami <laughs> mami sama ordinateur tojee police lañ jëm xel mi négligé xaalis réew mi neexul c'est que moom bu ah, boo xoolee te bu xiw ma ba tey rek ma xaar na mu ngoon ni ma xol muyu ko ah, ah, yu daas la indi. <laughs> Ah, li muy négligé nag. donc je disais que Daxa Diallo nee na. xel mi <laughs> moo moo am ay ay troubles psychiatriques moom mooy justifié euh, <laughs> mise en place vaste réseau de système boobu yi nga xam ne def nañ ko ngir euh, duubal xaalis. Euh, ci ava yi nga xam ne tam wax na ko nee na jox na Modou Habib Ndaw mi nga xam ne euh, Mamadou Abib Ndaw xàmmee nañu ko ci euh, diggante mm-hmm. Ousmane Sonko euh, Macky Sall bokk na ci ñu daan euh, opposé wu rek di am ay kàddu yoo xam ne daan na ko teg itam euh, ci kaw Ousmane Sonko nee na jox na ko somb bu 20 millions de francs CFA ci koppa googu euh, Daxa Diallo tam indiqué na ne comptable bi di Moussa Diop da doon monter ay faux dossier di def itam ay ay démarches ngir mën a chercher wala trouver ay fournisseurs. Daxa mi négligé moo doon def loolu. waa Daxa mi am ay troubles psychologiques Mamadou Ndaw nag moom partiellement la reconnaître les faits ndax nee na. jot na somme cinq millions euh, ci euh, euh, Daxa Diallo ñu ne ko Moussa Diop moom moo ko jox wax na tam ki ko boole ak Moussa Diop muy fornisseur boobee nga xam ne wax na itam noonee nga xam la daan def ngir ñu mën a am xaalis informaticien bii di Alf Alphone Jombo Jàkkane moom nee na moom moo saboté unité centrale bu ordinateur bu Daxa Diallo bi nga xamee ne waa IGF dañoo débarqué ngir mën a ñëw daal xool si mbir yooyu le muy ay fee yoo xam ne mi ngi ko def sur instruction de Daxa Diallo. ñoom nag tey ginnaaw ko de parquet yu bari yi ñu am ah, tey ñoom itam danañu leen jébbal procureur en tout cas procureur tey moom bari nay dossier mhm. en attendant yeneen ak yeneen yi ñëw ak waajoo yi nga xam ne ñu ngi ko woowoon démb ne ko ah, bu tayee nga ñëw kana kooka ah, fi mu kii mhm. moo tuddati yow. waa ji ma <laughs> sama ndeyjoor. ba yow sa xel lay négligé di lu ma waaye wax ma ne ko sama xel mi newu fi woon. kaay ma wax la nag mami. <laughs> man de waxal rek te bul bokk si di ma dimbali war a ngir yàlla. kay daa jaaxle. <laughs> ah ndaxam yi de. ah yàlla baax na. mami commentaire. kan man waaw Mamour Thiaw bu New Jersey moo leen di ziar noonu. ñoo ziar nañ <laughs> ah, nañ la ba ah. man ah. man sax fan yi dama waaw dama commencé am ay problème psychologique. <laughs> Mhm. Mm. Euh, taay moom dama commencé dikk la. lamb ma. ah ah yow tamit da nga am problème psychologique. Mm. Ah, problème psychologique psychologique psychologique bi bi du dara ci. mooy yow ma man mii bu ma neexee li ñu ma wax fi ma def ko. Sénégal neex na wooyu ma leen sama xel mi négligé. psychologie de. problème psychologie dafay dafay kii yëpp problème psychologie la. loo dépense da nga koy fàtte. waaw ah, problème psychologie la de. sama numéro bi ñuy jaay tam nañ ko bàyyi sama numéro bi dinañ ko joxe gratuitement. ayca waaye kay dimbali nga ni ma ne sama numéro bi ñuy jaay ñu bàyyi ko mami loo wax. ma ne sokolo sokolo si la waaw problème sokolo si. sokolo si bi sokolo si bi waaw problème soko la balaa ngay balaa ngay am problème nuyu ma Lamine Touré depuis États-Unis ñu ngi koy nuyu bu baax mu ngi lay nuyu di nuyu Pa Ousmane Pa Moussa ak Nabou bu baax Touré ay jàmbaar lañu jàmbaar lañu de sokolo ah non non sama sokolo bi ñëwaat bu sokolo si bi ñëwee ñu kii d'accord sokolo si jërëjëf un commentaire commentaire mooy ne plus jamais ça bu ñu paree ci liggéey yi ñuy def ba li ci war yëpp ñu def ko fi mu ñu war a yóbbu rek mooy ni réew mi di Sénégal kenn waratulee fee xalaatati ñu dénk la nga mel ni ku jaawale parce que mën maa gëm ni ni mën ngaa jaawale sa poos ak poosu dëkk bi nga mel ni ku jaawale poos sa poos ak poosu dëkk bi. Ah, ah, waaw mais des fois bu fekkee ni. comme ni ko Ngoné parce que important léeg-léeg nga yam ay trouble mu tax nga mën a coppet ci kees googu dugal ci sa poche. mari bay joxe ay instruction nabu nañ bàyyi caaxaan. Mm. ngir réew mi sérieux na sérieux boo xam te ak fi ñu toll nañu bàyyi waxu caaxaan yi. wax yu taxawul ci dara. ci mm-hmm. saret waxu daanu saret yi mooy lan. Mm-hmm. ay doolu mooy lan nañu respecté sax ñi nga xamante ni am nañu feebar yooyu te ñuy faju mm-hmm. te ku ne lay dal. nañ bàyyi tappale yi te balaa ngay wax loolu ma denc la ci am na ci ñoom ñoo xam dañu am ay ay problème psychologique ma ne nekk ci kaso bi xaar li ma la wax c'est très important may ma tuuti mhm, mhm. nekk ci kaso bi seen ay avocat bu ñu waxee ne seen nit ñi dañu am problème mu xel xam lu nu di wax nañu dem and kayit bu koy firndeel mooy dëgg pour nga mën fi génte naam am na ñoo xam ne avant ñu fay dugg la leen dal ñoo xam ba ñu fa duggee ci leen dal yow nag dofoo doppooloo dala jotu la dangaa tibb ci alalu askan bi dañ la koy jiiñ mhm. nga bëgg ànd ay problème psychologique saa waay loolu jàll de mos naa dégg nga baal ma rek walla mu ñëw pour dëggal sa kaat yi ngay wax ma dégg benn ancien détenu mu ne moom bokk naak cellule koo xam ni xel mi dafa dem te mu ngi ci biir prison bi fa xaaj bëri nañ fa. dañ fa bëri. ki dem suba te tey feebar la boo xam bi mooy booy sàcc booy jël. ki dem psychologie du am. waaye mbokkam de mooy tam. xam nga li ngay jël loolu bay lekk. psychologie du dikk ah, psychologie balaa moo dikk enquête ñëw. nit ñi di gëstu après psychologie doo mais c'est un système ki a été mis en place pour di sàcc alalu réew mi. maanaam man xawma sax gang laa di tuddi xawma lan la à la l'objectif pour man mooy fexe ba démanteler ce système là et que définitivement même bu ñu fi jógee sax pour man war nañu revoiraat daan ñuy teg ci détournement de de deniers publics pour man dafa ndaw ñi jàpp ni yëpp dañ ko war a criminaliser mooy dëgg te il faut ñu comprendre ñiy wax ne dañ ko war a criminaliser fan lañ ko teg xam nga fi ñu ko teg mooy lan tey xale yi ñuy jooy nii surtout département bu Mbour ñu ngi leen di bu baax parce que dafa mel ni dernièrement. ñoom ñoo ci gën a dund lu metti mhm. désespoir boobu noonu ci gone di jël gaal parce que amuñu mieux être des politiques publiques yu marché wul moo ko indi mhm. te politique publique pour nga jëmmal ay projet koppar la laaj assemblée nationale la jaar ñu natt ko ñu génn ñu war a yëkk la natt ci assemblée nationale jëm ci mhm. askan wi ba ñu xam ne lii kat seen seen alal la ñu ngi koy def ci ñoom ay nit taxaw fa détourné ko lu waroon doon hôpital ba nit ñi mucc ci dee ci ñooñu c'est des criminels. mais dañoo xalaat loolu ñoom. foo xamante ne dañ fa war a bënn ndox jaar fa. mais xalaatuñu loolu nga jël alal jooju fu école wala baaxee ñu def fa crinting. yow xanaa xamoo sàcc dafa yàgg. ba tey ñu ngi nii war a dem ouverture école. am na ci zone yoo xamante ne ba tey. Pape Ousmane doxaguñ ndax lan noppalal sa bopp. alal ji fa waroon dugal ñu dënneex yóbbu lay wax may ma tuuti ma wax la rek sàcc dafa yàgg ci réew mi te gis nga sàcc gi dafa dem ba dañ koo normaliser. Mhm. moo tax li ngay wax nii dëgg-dëgg boo dee xool on a des problèmes psychologiques ñun c'est vrai parce que ñun dañoo dem ba suñu dans notre conscience de tous les jours maanaam amatuñu problème mu xel moo mooy tëdd guddi mu lay wax naan la Pape Ousmane yaa ngi def lii de cest dire nga am conscientisation amatul xam nga lu tax parce que sàcc c'est devenu une